nga defee ne dem nga ma jaar la ci suuf rocc rocc <laughs> rocc sel gi nga daal man naa ko de te billahi li ma wax nii soo xamoon ci nga bu la jeexee bu la jeexee bu la neexee set ñaar sëriñu waañaan yi li ci dee li ci dee ndaxte am naa man man ku xam ne sama kër kaf la boobu benn kër gu ma boo jënd de war ci def daara ji sañ ko ma ko ma amal ko mu dikk bàyyi ko ca àll ba ne nga am ak jabaram ñetti jabar ba bañ dikkee da nga maam mu dem xam nga fu mu dexee fa muy gàccee reen ci àll kolobaat ci ci mar foofu la dexee ci àll ba ba nëb fa limale ci limal nag ay nit yi nit yoo xam ne kenn mu la wax yaa ngi doon dégg nag ay gisoo ñu bëri dee ndaxte jinne daf lay daf lay def ba pare ba nga dugg ci mu mbas la nga dee loolu ci dee nit yàlla yi nga dikk ci péeb yàlla ba nga nax yàlla ak njullit yàlla yàlla dafay génn ah, te dal Ibou Diouf ne mag mu la yërëm dugal la ci toolam nga dal da koy ñaay daf day dal di génn toolam Ibou lu ma la wax rek mën naa ko génn ci wax Ibou Diouf ba dugal ci toolam diggal ci faydu bi nga diggal ba dugal ngay ñaayi nag faydu bi génn toolam gaa yi baraaw say waay lii mag gi wax yu njëkk yooyu moo doon tarbiye nit ñi àgg naa ci yàlla li ma xam doy na ma damay toog muut leen boobu ma xamaay gaa yi baraam waaye yooyu nag li ñu waroon jël ñu koy jàng buñ ko jëlee way gàmmu rek pour ute ko xaalis déedéet kon nag léegi na ngeen xam ne man ko wegu laa ko xare ah xal yan suroon a xaarandi kooñ ñoom ñu dugg ci diina ci di ci yàqu kenn xamul tarxes tarxesoo nit ñi xal yan suroon a nekkul ilaa an yaati lu ma ñëwal leen ñëwal leen allahu laahu laahu wari moo leen di ñëwal min lan min sulalin ab lëndëm minal xamaay bàyyi ko ci niir mooy lan mooy lan niir boo xam dafa ànd ak xeer ñoom ñiy def loolu néguñu lu mooy yàlla ñëw indi ab euh, xiir boo xam ne dafa ànd ak xeer wal malaayikatu ak malaaka yi moom laaw mooy dikk ak xeer ak xiir wa ak malaaka luy def wa qudiya ñu àtte al amru bi lépp dañu ne képp ku nekk ci diine da ci client da ci yàqal nit ñi da leen client yow nga nekk ci def client fii ngay mujj yàlla lay rayal boppam ak malaaka yàlla mooy jëlee malaaka yi moom ak malaaka mi ñooy dikk nag xam nga luy lëndëm mooy xamatoo xamatoo foo jëm réer ci la dama lay tuur lëndëm da ngay dégg diw tuur lëndëm xam nga bu ñu wax tuur lëndëm mooy diw damaa dugal ci lu ma xamul yàlla lay jël nag di tuur na ngay dugg ba ci loo xamul nga xala ko nga foog ne fa nga baaxee fa nga dee baax na boo yi neexee na bu la neexee bu boo dee rek bu la neexee ñu yóbbu ci sëg sëriñ bu la neex waaw ndax léegi fi ne nii moom ku dee fii rek nañ la yónni ci kër kër kër demal waaye maa ngi ko déglu benn benn benn ndaw soo xamante ni eh, musicien la woon nekkoon eh, kii nekkoon eh, Liban barki dem laa koy xool ñu ngi ko suul ci bàmmeel ma bàqaate katali la catholique ñu ngi ko sol ba xëy ci ci ci ay ci jam matagu matagu téeméeri at boobu léegi mysticien la woon catholique la waaye fexe na ba nax nit ñi pour wane ne que ñu nax ñu ko sol ci ba xëy na ko jël abo jaal fu ñu ko suul abo laa fu ko suul da dégg nga maam <laughs> yooyu fu ñu fu ñu leen suul ca réew mu tàdd ma ca suuf si sedd suuf si sedd xam naa lu dëkk bu teg dëkk bu tedd ba dëkk bu sell ba dëkk bu sell ba yaakaar naa dëkk mu tëgg na sedd lu mu ko ak màkk ak mi waaye nag nga dee fi ci kéeféer ah seetlu <laughs> de sellal dëkk bu sell ba da ngay dëkk nit ku sell ki illaa ibadaka minhumul muxlisiin nekkal muxlis fuñ la suul nga nga mucc waaye nekkoo muxlis xanaa nekk mujrim ñu ñu suñ la ci da nga maam kii xam nga mujrim fuñ ko suulee ñu ko suul ci kaw safara ah xanaa dañ xamul ne safara ak eh, safara ak safara ak eh, safara eh, ñoom ñaar ñoo lëkkalaat nii xam naa nag buñ demee bu ci suur aaraaf ñoom xam ne nag niñ taxawee ndax ca aaraaf dañ ni ay gaay fa nekk yoo xam ne buñ xoolee fii seen kontaante gi gaay ñu xool fii seen safara ñu nga nekk seen safara ñu ne waaye yàlla bu ñu dugal fee de waaye loolu kay loolu loolu maqaama iman bu ànd ak maarifa man ngaa dem ba xam yàlla xam ni waxoon na kàllaa law ta'lamuna ilmal yaqin la nan tey kon man ngaa àgg yëpp maqaama ji jëy yow nag yaa ci àggagut waaye boo àggoon ci xam jëy kenn du la triant ci dina da ngay dem dina ñu bëgg de kon nag ñii nga xam na dañ fi nekk triant li ñu yor ñoom xaar ji nga xal xal xal bu ilaa dëkk ci kanam doo ko fireeti fireem laaj doo koy fireem fireem dàq xaal yenn su roon a néguñ ilaa an yasuru mooy ñëwal leen allahu lahu min fii sulalin ci ay niir min xamaamin maanaam ci les ay wala lëndëm min al xamaami te ay niir wal malaayikatu ak malaaka yi ñoom ñuy dikk waqulil amru ay biram alal te nag su ma leen alagee maa sama malaaka wa illa lay yàlla rek rek rek rek tur yow lay lay jël al mbir yëpp mbir yëpp ci yàlla lay jël li ñuy nekk xam nga kër yi dafa am luñ desal mooy waruñ nit ñi li leen di nekk ci mbégte ca àjjana ak métti ca safara loolu su ko nit ñi xamoon moytu ne ko ndaxte kër gu soof gi dégg nga nga nekk fi euh, boo sa bu sa sëy tasu sax sëy ba neexut nekk sëy bu naqari <laughs> jabar yoo xamante ne man loo ko taw yow di wala sëy nga nekk ba yàgg ñu sëy ba tas ak yii yëpp mi fi nekk nga nekk ci xéewal gu yàgg yàgg xéewal gu feebar dikk ñu lay yóbbu nag maanaam di la yóbbu ay di la di la soppati di la soppal deret boo weer weeru nekk yóbbu France ñu da nga maam ñu sotti deret di defe loolu mën naa mën naa continuer dund boobu dina neex léegi baal yàpp guddi baal nangam baal nangam sukar bi nga gën a bëgg bàyyil sukar bàyyil xorom yii nii jar na nga nekk ci kër bu ñàkk xorom gii boo léegi nga dem ci dund boo xamante ni doo deexati doo oppati doo ñàkkati doo xay am soxla bu ya nga am milliards yi milliards la nga bëgg ci at muy sëy muy leneen te du la yàqal dara ñu ne ñaata at ñu ne déedéet foofu moom abadan la daay man abadan àddina tukki na dañ ko dégg waaye àll àjjana dañ fi bàyyi ñibbi fenn kër da kër yow kaay la waaw lii bi ñu ko xamal ni ñu li ñuy xaar ndakaaru gii bu ñu la joxoon kër yi fi nekk yëpp lu muy jëriñ benn kër ngay dëkkee léegi tey nga toog sax accidenté oto kii la nga ñàkk ñu doon ko. lii jarul ñàkk jarul ñu ñàkk kër gu bon gii bu mu ñàkkaloo kër gële te day àllaaxira kuñ fa jox lu toll naka àjjana kuñ fa jox lu toll naka àdduna joxul amuloo dara man de bëgguma lu toll naka àdduna ak ma ak maag yéen bu soobee yàlla xam naa ne kenn ku def dañ ko jox loolu moom fekk nañ yoon wi ñu aw nii li ñuy wax ne dëgg la ci ñun te ñun bu amee man xam naa ne la may séenu ak la ñuy séenu ëpp na àddina ci ak kii nguur goo xam ne mulkun laayum laa du rappati mukk yaa gën a buur buur foofu da nguur nekk buur yi waaw buur fii fii def da buur ana ana kii buur kii bi ñu rey ba caat bi ñu ba kii dem jaay waaw woote ba pare ñu jël nga maam nga dugg ñu rey la <laughs> waaw loolu nguur jar na ko fan ñaar ñu ne def na ñaar fanweeri at ci nguur fanweeri at nguur tey foofu foofu mujj ñu xay rey la loolu cëm ma ne gars yi lay xeeb kii saay-saay yi kër gi kër kër kër saay-saay yi la kër kër ñun dañ fay jaar rek pour yóbbulu kon nag wala nañ jël suñ nañ jël ñu continuer suñu voyage dañu leen dañu xam nga ñoom escale avion bu escale taxu laa jox fii dañu escale rek waaye dañu continuer kon nag lu mbir mi mujj mujj waaye lay torjal omoro ah sal laajal yow maxtaar yow biraan yow baaba laajal bani israil doomu jaamukatab yàlla ba tudd yàqoob kam ñaata aatay naaxum laa leen indil joxal leen min aayatin ci ay kiimaani bayyinati yu leer nañ laaj leen ñaata laa leen ko jox ak ka bari lu ne defal naa ko waa Israël ay mbir yu lëmu mooy na xottil naa leen géej ah sam noon bëggoon laa jàpp ma rëccal la xalax sa noon ci géej ki teewal wàccee naa ne mënoog salwaax ca ba ngeen toogee amuleen fi ngeen lekkee ak naan xottil naa leen ay robinet fay leen fay leen benn facture ndox lii de fàttaliku leen ne tiraanga ji defal naa leen ko sal laaj leen waman yóbbadil ku changé weccee nii mat laay xiwalam yàlla gëm ko jox yàlla jox la xéwal xéwal nga soppeeku la nga koy sponsor làmb sponsor football mm. sponsor bi nga di nga am ay mm. da nga maam fi nii ak da nga maam yi nga xam ne moom la ñu joxoo leen ko xanaa dem ko jox ay fokat ah koo xam ne milliardaire la nga jël say milliards di ko jox da nga mu dem di da nga maam ko di ko noose miskin yi nekk fi nii nga jël milliards yi nga di ko jox koo xam ne mi ngi denc ay milliards ci banque yëpp ci la bokk de ndax ñun sénégalais. dañoo jël koo xam ne jeexalu dara yokk ko dolli ko fekk miskin yaa fi nekk duñ leen jox dara boo ko joxee fii jël nga xéwal yàlla bi wéccee ko xéwal yàlla daf la utal foo ko jox innama sadaqaatu lil ba mu jeex waa léegi nag yow na ngay fekk fuqaraa yi ne ñumu nga dem seet feneen ah <laughs> am na eh, dima ci gis nga fii ni ñun boo gisee ñun alhamdulilahi rabbil alamin suñ dund bi fii dañ jaar fu nekk xam gis nañ lépp yàlla dimbali ñu suñ dem dund kenn mosu ñoo jant am na ku ma jox ne ma loolu koo xam ne mi ñu ngi doon ci Ndakaaru di ko wéyal ba gars yi jigéen di ko woy ci rajo télévision yëpp lañ ko jox man lañ ko njëkk a proposé ci jidda ko ko indi mu nga tudd Assane Halim fekk ma ci kër baabu mii boobu ci jidda ah Sadou Sadou Arbaïne Sadou Arbaïne la ma la lëkkee nee ma loo bëgg ci xaalis ma jox ñu jox la ko hôtel boo bëgg ñu jox ma jox la ko te nga wàcceel ñu xaalis ma ne ko ma ne ko su ma mën a wàcce xaalis Sénégal laa koy defal sax bopp toog mu ne ma déet xaalis bi ñu leen di jox ñun ci ngeen di lekk waaye xaalis xaalis bi dina jox ñu ko kii loolu lañ gëm de naar yëpp loolu lañ gëm boo gisee door katimat loolu lañ kii su ko defee ma ne ko xanaa xamoon ne xaalis boobu ñi ko def buñ ko defal sax day day day day day day lu mu ne ma man laajuma loolu yaa yaa Muhammad yaa Muhammad xali ko bàyyi soxla yëpp defal ma liñ wax loo bëgg ci xaalis laaj ko ma ne ko xam nga lu ma bañ gii ma def fi loo xam ko mën a siyaare si ak Makka Medina ko def bañ naa <laughs> ci kër baabu gi la benn góor gu ñu gu sant ja ba ñoom ñëpp xam nañ ko ñoo fa nekkoon ci kër ga bàyyi loolu ñu xam na ko mu sant ja ma wax ko ko <laughs> mu bu nga dee oustaz yow da ko war a jox ñu dóor ko dóor ko coolo sa wàlla ma ne dóor kon ma dóor ko sax boobu sàcc sàcc leen sàcc leen billaay li ma leen wax nii dama leen wax ne da ngeen war a xam ne li nga li wéccee ana kooku fu mujj tey fii ci Ndakaaru fu mujj fu mujj léegi denc nañ ko kër gi mu desoon ci këram yi mën naa laa wax yoo xam ne moo ko ndax ne ko kaay kër gi jox ma ko ma gaar gaar du banque cinq cent millions jox la cent millions bi fay mu jox ko ba mu ko joxee da nga maam ndax booba xaalis bi mu yoroon ci fa la jël parce que ay milliards la jël ay milliards lañ ko jox ba ko defee nag mu dem jox waaja waaja da nga maam dem jënd dem jël banque ba euh, dugal mu jox ko 500 millions bi mu di ko jox ko 100 millions tëdd a fay banque ba banque ba na ko kër ra na ko kër xam ngeen ñooñu ci dëkk bi te ñooñu xam naa ci dëkk bi samay ngaay yoo xam ne moo xam ne ma xam naa leen li tax ma ne wax ne damaa bëgg ngeen xam ne lii nii duñ ko àddina duñ ko wéccee yàlla. soo jàngee alxuraan ba xam lii nii waaw ana loolu fu mujj léegi déggatoo ko ndaxte nit ñi balaa ba bu buñ lay wëy soo amee waaye ba mu fayee déggatoo ko déggatoo ko ko wëy <laughs> bu paree ku ma ko laaj ci fet ma waxal la kan kan la <laughs> ku ma ko laaj ci fet ndax ñëpp ko xam kon nag lii ma leen wax nii li ma leen wax dama leen wax lu man lu pré lu lu présent lu ngeen mën a tëj bët àddina ku dikkoon ne milliard a ngi ah te nga te eh, nga maam bañ a jaamul tàkkusaan rek. bañ ne ko jël sa milliard wala mu ne jullit jullit jullit jeune benn waaye fii benn waay nettali naa la ko benn waay faas gi dana paal benn waay faas gi dana paal bi ko jinne ji feeñoo ubbil ko armal xaalis ne ko aayu ma la julli aayu ma la woor bër bu tër nga julli ñaar rakk rek jublu jublu sow jut pour man mu bañ taalibi Cheikh la waaj waa waaj yàlla musal ko mu mu da nga ma mu rëcc lii nii moom laa la wax ne bul xam ne xew li li tax ma ne ko dama bëgg nag ngeen xam yaa sal bani israil kam aatinam min ayatin bayyinatin wa man yubadil ni'matallahi ku weccee xew la yàlla ki def ko ak caay-caay min ba'di maa jaa'ahu gannaaw ba ñëwee ko dëkk yàlla indi la dëkk nga wécc ko kéeféer ndax ci kéeféer mooy lan léegi yow nga jël kii di ci def ay kii naan maa ngi wàcc maa ngi maa ngi soppi xaalis soppi xaalis kéeféer la njaber kéeféer la lépp loo xam ne yaa ngi koy def te du yi dagan na kéeféer la te xam nga ne lislaam daf la ko arama am na koo xamante ni boo dikkee da ko weexal bu tey sàngara ko ko indil mun naan ba ne tat doog laa defal la mu defal yow nga dikk nag kon ko ko kéeféer nga kii weexal kéeféer te mi moo fi am yàlla moo xam ne xew kon nag lii nii ko def jël nga xéwal yaa wàll yàlla wécc ko ko ak li nga xamante ne mooy xéeféer koo xam ne jël nga xéwal yàlla wécc ko ak eh, min ba yu ba ni ma eh, tay min ba di ma jaatu fa inna laa yàlla sadidul iqaabi ku tar ay duma la du ma yu métti daal ko dugg la ilaha illallah ma nii kon ana milliards yi ñu joxoon am na koo xamante ni xam nga eh, mi ngi woon ci yoonu fii mi ngi woon ci waxaam fii soxna eh, suñ soxna sëriñ bi moo ko mujj a denc yéen yéen yéen ngeen dégg ko fu mujj déggati kon nag lii moo fi nekkoon ana nit yàlla yi nga xam ne dañoo jaay seen nit yàlla mooy ñen mooy ñi ñeeraamal tey ana fi njaaroon gedd tubaab yi gedd ceddo yi gedd lépp jàpp ci yàlla ñu ne di bu ndu xataal di solal seen taalibe ñu ne bu yeboo ba dina ci taxaw tey waaye ñooñ dañuy ëpp ngor ñooñ nañ leen roy bul jël xewalu yàlla di ko weccee leneen kon nag fay na laa yàlla sadlu iqaab bi ku tara duma la ah suy na <clears throat> suy na rafetal nañ lii la seen ñaa ne kafaroo xéefir nañ déggul de xéefir yi mu ne mi ngi wàccoon ci xéefir yi màkk nuñ daan def ñoom day naan kaanoo yastahzi'uuna bi fuqaraay muslimin ah wa yasxuruuna minhum ñoom buñ seenoon miskin yi yonent bi ñoom bilaal ak euh, euh, yooyu <laughs> ci kuba waaw ah kaay kaay kaay kaay ñëw na def ah may la ñaar dërëm ma may la ñaar dërëm xam nga ne yow dama la yow dana jox sama xaalis soo ne indi mu ne ma doo jox sabotage demal liggéeyi topp Muhammad mi nga xamante ni ñoom nit ñeneen ñàkk fayda cuq cuq dérére ñoom la yàlla wax kon nag ñoom ne fii na lii la seen a këfaroo rafetal la yéebéri alxayaat nu àdduna bi jigi yàq dund àdduna dafa rafet ñoom moo tax ñu ngiy jële ay milliards dajale lu nekk ah yaakaar naa ku dugg tey euh, Sénégal ku dugg Ndakaaru gi gis fi nekk ci ay sànci chantier <laughs> chantier bi nekk ci ay chantier chantier milliard amatu Dakar de million de chantier milliard <laughs> moo fi nekk ngay gis chantier yi nekk fii ñu ne dëkk bi dëkk bi amul dëkk bi neexul dara yàlla dañoo suur dañoo suur dañoo dañoo nëbb xewru yàlla mi ngi nii de naan kenn naqari naqari naqari ah xaw ma de waaye dëkk bi de boo euh, tabax yi daal wane ko man amul ruq booy dugg te gisoo fa ay chantier te rek du chantier yu ndaw de chantier yu mag a mag kon nag ñoom ñi ngi am alal yi de ree ñi nga xam ne ñoo ñàkk ñi dund àdduna rafet ci ñoom lool ñu ne ah sawaay tabax gis nga fi ni eh, boo demee bañ laajee yonent bi lan mooy mandraga saa mu ne dangay dem ñi nga xam ne ñoo doon sàmmkat ya ak baadoole yuy sutlante ay tabax seetal ndakaaru gi tey milliardaires yi ñu mag yi mu nekk yëpp kenn dëkku fi fu ñu bàyyi ko ca sàmmkat man mii day wax de eh, doomu saama ngi nii <laughs> doomu saama bi <laughs> léegi waaye ah waaye man amu ci xaalis moo tax man ma tax ci kii waaye ma amoon taxaw di gars yi de <laughs> doomu saama laa waaye su ma amoon ah waaye tabax waaye ma tabaxal nii moo ma dàqal kon nag wéyes xëroon na ñu ngay ree mii na la si ñi nga xam ne gëm nañ baatu sàqira trompe def ci am dégg كون نك وف يلا فضل بعضهم على بعض اللي يتقس بعضهم بعضا سخريا ميو بعض سكر المزري تنقت بعض سكر المزري ريه ليك نغن يلا موجل ني ام درجه ني نياك درجه pour ñëlé ré ñëlé yow déggul arab da nga wara xamné yalla dañ la fi kamu lool yalla yalla ñaan ñak da fay def defé lool dédé man maa jël ñii am daraja ñii ñàkk daraja man tàggal leen ndax ñu mën a liggéey di nga néeg bii ña ko liggéey borom it borom yi seen seen daraja wàcc boo demee tabax yëpp su fekkoon ne ñëpp dañu nekk ay patron kuy tabax kuy yenu saako kuy conduire oto yi kuy liggéeyal kii kon nag maa dem ñii néew doole du ko defee ñu mën leen a embaucher réew mi dox àddina dox lii mooy tas tas xiir tàggat tàggat la surga surga lañ ko tuddee. maa leen defal ay surga ndax ngeen mën a jàppalante ay surgaa gi mu am njaatige ki patron benn benn benn benn ci benn kii benn waaye ci ci koy xam nga ñun tijaan boo demee ñu ne kii tijaan boo demee kenn du la kenn du la dimbale te am na leen ñoo xam ne boo ñoo xam ne fu mel ne que Abdou Rahman bii ak beneen wax salafi dañu am ñu fa nekk ñoo xam ne buñ la bindee buñ la bindee boo demee ñu bind la nga dem. boo wanee rek ni sa sa plan jàkk ñu jox la nga tabaxi jàkk waaye boo dikkee ñu ne anti tijaan yi xalaas léegi rek ma dikk moom mu war maa bindal ma àndal sama benn xarit ñu dugg ci bureau bi te moom bi muy firi bu buñ firi xam nga buñ jàngee ba buñ buñ julee ba pare dañuy def dañuy jàpp dañuy wax bayaan bayaan waaw qaala allahu tabaraka wa taala waxtaan waa ngi kii maa ngi koy xool rek te lem naa bureau mu bañoon ne du ma bi du ma bi dégg nga ba mu pare ma waaw kii tey tey tey tey dina ma nga ma ne ko yaa bugguma ko gaañu na sax ndeysaan gaañu na ma ne ko yaa seex ma ne ala asal fii aqta fii nga aaya bi yaakaar na nga juum mu ne kay fa kay fa ma ko kay fa laaw nan la yàlla di jëlee jox kii alal jox kii alal pour kii ree loolu parce que ban njëriñ la ci yàlla am ban important mu ne kon lan la ma ne ko waaw koy yàlla dafa yëkkati ñii ñu am daraja ñii ñàkk daraja ndax ñi mën a jël patron yi mën a jël ñi ñu def ay ay travail te leen liggéey mu ne kalam ko caa kalam ko wax nga dëgg keroog de bind la ma lettre yi ngay jël moo tax di nga fañ lay jaar mënoo ñu rëcc ñun wala yi gis nga fi ne nii boo xamee kër Baye Niass kii bay euh, ba gànnaayoo gànnaayam yi seetal Baay Ñas lim lim feltoo ligue islamique ba mu koy taxawal mooy nekk membre fondateur yi njëkk a jox xelal arab yi liggéey lam fa koo xam mu ngi nii nag bu la kenn tàggat bu la kenn ñàkkal fayda ba nga wacc li nga yor ni ma xamee tariqa yi ak doole jim am ak for jim am ni ma xamee faydu Cheikh Ibrahim bi doole jim am ak forom ak ñër gi ci nekk ma dem yow ma fekkale ci ngelaw nga dem a buuxal nga dem a nga dem a nga dem a eh, kii fuuxal dinaa la wuyu <laughs> waaye itam moo tax dañ leen war a xamal ni nit ñi dañ leen war a xamal diina ci xamal leen téere bi xamal leen tariqa bi xamal leen faydu bi su ko defee ñàkk fayda gi ñàkkee fayda ba léegi léegi buñ nga diine te bu nga téere bi kenn du ci dikk ndax oustaz gi amul korom amul taalibe te day wax dëgg wala wax wax dëgg sax waaye neexul léegi nga dikk nag doo ci dëkk léegi ñu ne julli gii yaay mujj julli buñ ne wasifa doo ci sawar waaye damay xool man day ustaas gay su ma doon dikki fii ci wasifa yi manuma jaral ma toog si ci biir wasifa yi xale ma toog di wax ci suuf kon ma toog sama kër ndaxte wasifa lépp looy damay lii dama leen di xamal liñ nekk li mooy fulla gi la keneen nekk li man jàppee moo ko fulla kon nag ngal waay bu leen dem ñële di leen ree tax ngeen bàyyi li ngeen nekkoon déedéet wa yasxaruuna mina llaziina aamanu te moo fi nekk ba tey dañuy réew yow ñu ñoo fi ne arab yi boo demoon boo demoon ci réew arab yi fi ne suñ suñ gone moo tax maa ngi ñaan yàlla yàlla na si bàyyi ñis moom la doom yi dem doom ci réew réew naar yi mucc ndax fii koo fi gànnaayoon ba mu dem day fekk naar bokk moo ko ëpp doole yow yaaqi ma ma so asla iman iman sërbal xam rek naan sanga lu ca nekk gis nga li tax alquran aye ko mooy naan bay mànde bay turbale waaye boo ko defee da boo ko boo ko boo ko ménagé ba mu kii nga naan dafa baax ci yaram am nag étudiants yu bëri wallaay ñoo xam ne boo dikkee am na koo xam ne mu ne ma xoolal sama lam yi ni mu ñuulee te man étudiant bu baax a baax bi mu nekk Sénégal am na ñoo xamante ni da nga ma am affaire caaxaan déedéet léegi yaa yaa xëyante xaqali din din din ak gis nga moo tax fi ne yooyu yëpp moo rax moo rax fi ne suñ xale yi sax ci dëkk bi toog naan léegi mën ngaa jël diina ji bu la neexee ngay yow boo jël benn waay nga fii de boo xam ne dara na sant moom day moom boo jëlee laaw ku laaw laaw ku màgg la maa ngi dalee ci turu laaw mi nga ne moo yërëme mi mi ngi fii ci dëkk Dakar te et def mi ngi génnee mi ngi génnee Maroc def Égypte ñooñu ñooñu ngi fee dëkk bi del loolu nag ñun du yéene ñi ne ay bànnee ngi fii ci dëkk bi ah kum neex nag kum nag nii la ñoom nag bu ko defee yow boo dikkee war a diine ci tànn yi nga fi ne naari boo demoon fi ne ak seen ñi ñi nga gis ñuy sol eh, yëre yu gàtt yi ak ah si kii mu guddi bu demoon ci naar léegi nga xool xool ba mu yàgg <laughs> xaliba <laughs> bàyyi ko fa la fi ne nii du dugg foofu man maa la ko wax lu ma la wax fi ni ne nii li tax may wax ne mooy sénégalais yi nekk Sénégal ñuy indi jox leen ko ñoom ñoo gën a tàng diina sénégalais boo xam ne mu ngi fii ci université mos ta dem ci réewu arab sénégalais boo xam ne mi ngi nekk élève nekk fii ñooy dikk na na mooy nangam na mooy nangam nga dem <laughs> dama dama ma daje ak ñoom ci Maroc ji nga fi ne Saudia ku guddul sikkim amul bu la nee nga sedd ci da ko seetaan télévision ma daje ak ñoom ci aéroport Maroc léegi ba ñuy photo di am dante ñu ngi sikkim bi léegi nag war nañ sikki ñi buñ dikkee ci gise bi nga xam ne ci lañ la war a kasale waa ji lay xool sikki xool la xool sikki xool maa ngi taxaw ne ci peggam ma ne ko yaa xali naa siem si waayot bàyyi nit ñi ñii sikkim dafa xew léegi mu réew bëgg a dee ma ne ko bàyyi ñii sikkim xew na léegi ñii dañu ne ay sikkim léegi ñu mu ree na ma ay daal di doolu kase ñu dem lii fi ne moo xew ci gis nga nañ togg suñ xar yi ba ñor ñor boo xamante ne fuñ génn ku daje ñoom mu mot na ku leen ah lii la kon nag ñuy ree bul dem ci koo xam ne gis nga fi ne boo mot na ko dem ci naar wallahi maa ngi ko maa ngi ko maa ngi ko xulóog naar boo xamante ni <laughs> ci ci balaa li ma leen wax li ma leen ko jàngal damaa bëgg ngeen am fit ak fulla naar naar ba damaa dikk am ku gis sama kii ne yow dama lay defal nangam. mané ko saway xam nga lan man dimbalé ma baal mu ne ma dédé da ngay indi sa ambassade bi ma defal la li nga xamné mu ngoo ko booba ku ñox boobaa ba fa nek ak ku ñox ku ñox ki ki kunta ma dik ci kunta ne ko ah, amna ku ñox abdou khafar noo dégg nga maam fo fekk marba moko yore marba yëpp moo doon kondé bo doon abdi ab bi do ko ndir faysal mu ne ma boo ma kon euh, ambassade bi ngeen and bu ngeen dikkee ci ci seen la bëgg ma jox la nangam ma dem jël kunta jox ma kéem eh, eh, ma dikk na ko gis nga daa carte waa mu ne du ma ko indi tey du ma ko indi ëllëg mu ne ndax lan mayuloo ma ay milliards mayuloo ma dara xanaa ay ay kii dama xanaa yow ambassade xanaa man sama ambassade ne da nga ne ay xott la jëlal sa xëy bëgguma ci dara <laughs> secrétaire yaa ngi bàyyi loolu ma ne ko yow sa yoon nekku ci ndegam góor gi li ma ko wax daf koo neex ji kay ca guddi ga la ma woo ngi kër yaa aman mu ne taa bokkala taal maktab ñëwal ci ñëwal bureau suba ma ne lu ma wut si bureau mu ne bas ñëwal rek waaye ñëwal rek <laughs> ma ñëw ma ñëw li ma leen jàngal nii dama koo pratiquer moo tax ma leen koo jàngal te milliardaire la ma ñëw secrétaire bi ne man ma de yow jaaxal nga mu yow góor gi dafa kontaan ci yow daf la bëgg sax bokk nga bokk ci sa société bi wallahi maa ngi lettre ma naa ko indi léegi ma jël ma ne ko xam nga man duuma kuy liggéey yéen mun naa laa indil ku liggéey yéen kuy sant sant Diouf nekk ko daman ci kër baax mu ngi mu ngi licencié eh, eh, eh, mu ngi licencié suda suda moom la indi mu bam pare moo ko defal formalité mu dem xaj ba pare mu bindal ko lettre cent soixante millions cent millions dollars yoo xam ne ko boo demee ne Cheikh Cheikh Mouhamad suñ bëggee nañ waxtaan ak gouvernement bi ñu dem ñu indi ko ñu ñu def ko ci banque bi ngeen di tabax ay ay logement xam nga loolu xam nga mënoon rëy na rëy na lool lii nii lettre baa ngi nii mën naa ko indi mën ko indi mi ngi sama ne am nañ ko bind 100 millions dollars muy nekk ay 60 euh, milliards jege na ko ma dikk fii xam nga nu ma def xalibal lii nag bañ ngeen xam gis li nga xam ne moom la nit ñi nekkee seen titre àdduna bu ñu leen jël titre àdduna bu mu leen jël ñoom borom ci titre bu ñu gisee way yasqaruna min allazina amaru ah waaye yàlla ne wala seen ñaa xam ne ittaqaw ñoo ragal yàlla mooy na ko bokkaale bu ëllëg fawqahum ñoo leen di sut yowmal qiyaama bu yowmal qiyaama yàlla ñu bokk ci boobu ñi nga xam ne ñoo am ragal yàlla bay amul lu leen mën a yëngal ci seen ngëm yàlla seen ñàkk tabax yu guddi yi bu ëllëgee day ñooy tax dëkk tabax yi gën a gudd ci ci àjjana waaye lii kër gi moo jar tabax moo jar xëccoo kon foo ko yawmal qiyaamati walla ñu ne ah xam nga léegi gis nga gis nga fii xel ne ah waaw yàlla milliardaires yi nekk fii mu ne ñun nañ teg milliar yi bu ñu jaamuloo xiram waaw bu ëllëgee ndax yàlla man nañoo fay seet xoolal alxuraan lii alxuraan day tëj bu dugub mu ne wallaahu yarsuqu mooy sariyu warsak man yasaa ku ko neex bi xayri isaabatil ku compte ñaata la la jox ku ma neex ma jox la warsak woo xamante ne xamuñ doo xam ñaat la te yàlla buy tibb di la jox ci poosam def naa leen nuxee rek amul compte moo tax nga toog fii warsak ngay toog rek gis koo xam ne xamul fu ko warsak wi jaar kon nag ñi nit ñi gannaaw nañ xam ne yàlla mooy joxe warsak ah kon nag léegi ñu trente cinq ñu taxaw nga wax foofu ah? kon nag wallaahu yàlla yarta ko man saaw bi xëy isaab neex na yàlla ñu yàlla war sagal eh, bëri na koo gis fii te ba mu digg bitim bagg la dugg fii ci dëkk bi ñu ne yàlla benn marchandise la yore marchandise marchandise su baay bi marchandise boobu nee na man mooy samay tool mooy sama compte banque mooy sama argent de mm-hmm. mooy sama lépp ñun ci marché suñu bàyyi moom lañ nekk tey bitigam boobu ci lañ nekk di jaayante ka jëndante wocc nañ lépp ay yàlla yàlla niñ bayee suñu yëpp dikk fii yàlla nañu ubbil buntu warta te buñ bàyyi te buñ la bàyyi ndaxte kat <laughs> am li ma wax sama gars yi ubbi la warta nga bàyyi xamoon ne ñun ci ñu la yàggee am na koo xam ne yàlla dafa bëgg ba bu mu ko daw su ma ko joxee alal doo ko jeese ci jàkka yi <laughs> kon nag ma lay mosal par toq da nga am loo sol da nga am loo toog ak lekk ak naan dara du na waaye jox lu xamante ne doo doon gis jàkk ci moom am na ñoo xam ne loolu tax de kon nag ñun yal nañu li bàyyi di wax yal na yàlla jox ñu alal te bañ koo def suñu xol te def ko ci def ko ci suñu loxo te bañ koo def ci xol bi yàlla nekk ci loxo yi xewal ci nekk ci ñu koy joxlante di ci jokkalante yal nañ am nekk ci diine yoo xam ne du amati kool tariqa boo xam ne mooy jëmi di tariqa jëmi diine ji faydu boo xam ne mooy jëmi diine ji ndaxte laa mubadira kalimaati laa kalimaati laay amul changement xam nga li baat laaw charia tariqa xaqiqa ay kalimaat lañu waaye baat ba change wul nag tëdd tëdd woon xam nga léegi baat tuddee dara tuddee ko dara kon tur yi na waaye borom tur change wul ma jox la ci masal Sénégal ba njëkkoon xam nga lu fi nekkoon chef de canton lu fi nekkoon ci jamono tubaab bañ demee chef de canton ñu te ko léegi arrondissement ñu ne chef de arrondissement xam nga fu ñu nekk léegi sous préfet kon ndax léegi kon nag ka fa nekkoon mooy la léegi fonctionnaire bu fi nguur gi teg rek moo fi nekk ba tey <laughs> ah kon nag lii moo fi nekk sensé ay méthode waxit kon nag ñun nag laa mu badale li kalimaat laa yàlla lam la waxoon démb lam ne moom la defaloon Muhammad defal ko yónent ya na wax ne boo ko defee ma defal la ko boo ko defee mu defal la ko amul changement ba tey yàlla nañ kon nag ñu ngi nii tey ci kër gii nii kër gi nga xamante ni mooy kër gi nga xam ne moom ah ku fi dugg sa xel dal na ñu ngi nii yàlla yàlla may ñu liñ bëgg allahumma salli ala sayyidina wa fatima akhla qawl khatima shaq nas raq bil aqi wala adla sirat al mustaqim wala ala qadri min qadar asim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun